dama eh, koy ziar man aussi surtout bour la eh, bio bio ma la machallah man diko ziar de don ko xamne ñep xam nañ ko mais nit day tontu dara te yeen du ngeen xamne dañ ko laaj ndax giwin la waaw man dégg na mu ne soxlo ma jigen peut être fofu la joggi mané man je fais l'amour toujours tous les jours ku munul xeyna dañ ko jiñ lolu man lolu tax loolu xëy na xëy na tamit lañ ko jiiñ ne moom dafay ndax am na am na am na ku doon wax lu mel noonu waaw waaw maanaam waaw peut-être loolu la loolu tax mu bëgg a leeral wax ji pour maanaam wax ji jeex rek ba ñu xam ne moom du giwin mais pour leeral est man chaque loolu man loolu man man du du man moom moom la moom kilifa la maanaam duma dugg du ma tooñ vraiment loolu daal laa ci mën a wax ndax dégg naa mu naan soxlawuma jigéen xëy na cause boobu mu wax moo tax mu taxaw ne moom góor la bëgg te bu amee jëkkër ci jëkkër la wax am am na droit def li ko neex am am na droit def def li ko neex. femme publique non loolu man duma ci dugg duma tooñ. su kon man du ma waxee noonu rek waaw c'est tout mais ma ci du ma du ma xus yëf jàmbur parce que damay bañ waa loolu xam nga moom mag la moom moom mag la du xale pourquoi ma koy jox conseil déggoo li ma lax dama koy ziar parce que nee naa la bëgguma tooñ jàmbur xëy na liñ ko wax moom moo tax ñu tontu loolu man mii suñ ma waxoon ne Selbé Ndom giwin la xëy na man dinaa tontu sax lu ëpp loolu peut-être man parce que neexul ab jigéen ñu naan la yaa ngi sëy ak sa moroomu jigéen nga doon kilifa yow doon responsable am ay doom ñu lay tuumaan naan la yow mi nangam nangam jotaay yooyu man du ma ci du ma ci du ci sori